salaamaaleykum gars yi mbokk wasaare TV ñoo ngi fii tey gaal gi ñoo fekk fi Jax production mu teg fi 2 millions 500 tey fii dafa mel ne tulleeg maale gars yaa ngi fi mbër mag yëpp a fi kon dañuy joxe rendez-vous ci kanam bàyyi ambiance mu daw a ñu ñëwaat wan leen li fi am lépp li fi am lépp tey dee ko wax dara du leen ci wécc jaajëf. salaamaaleykum mbokk yi gars yi téléspectateurs yi mbokk wasaare ñoo ngi nii fii ak Obeuly Obeuly mbër bu tollee fii ci làmb nu muy demee waaw bu fekkee pare woo moom day am nu muy demee si yow mais boo paree moom du demee neen ñu gis galaa bu toll nii mbër yu mag yëpp fi nga taxaw gis ay ñoom pakala ñoom Goro Sock ñoom Serigne Ndiaye de nga war a waaj taxaw pour jëflante ak ñoom nu loo war a demee tey waaw mais loolu noonu ñun xamante nañ suñu biir bu baax nañ façon tournoi bu nekk da ngay gis boo ñëpp yuuxu. ñu lay ñu lay bu baax a baax est-ce que yaa ngi bàyyi xel maa ngi bàyyi xel bu baax parce que doomu séeréer la wax dëgg yàlla yàlla suñu borom mooy maye woogu quoi defaguma fi lu tax nit yi bëgguma yenn bëgg yi. dama ah, kon ñu kon ñu lay ñaanal bonne chance. waaw mais dafa am benn message bu ma bëggoon jàllale muy Jules Baldé Junior suñu mbokk mbër boobu na ko autorité yëpp jàppale si barke Serigne Touba parce que loolu joomuñu ñun ñii ñëpp di tax ngemb kon nañ jàppale Jules Baldé Junior Habib Bougaye na ko autorité yëpp jàppale ba mu dellu si waat si liggéeyam ñu ko koy ñaanal bu baax. wax na dëgg geste bu rafet la geste noble la sa moromu mbër la su la neexoon nga ne doo ci wax loolu ndax yaa ngi dëkk moo ngi dëkk Pikine waaye xool loo ci loolu yëpp ñun tam ñoo ngi ñaanal ñun ñëpp bonne volonté yëpp jóg jàpp ci taxaw ci ñu ñaanal ko mu dellu si waat bu baax a baax ñoo lay lay jaajëfal bu baax a baax. jaajëf maa ngi yaa ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm baax compétition ñu gis ko làmb ju mag bu toll nii mbëru mag yëpp teew waaw loo a ah. a commencé la gars yi xaar ci kanam waaw ah, incha allah ñu ngi góorgóorlu bu soobee yàlla kontaan si yéen rek waaw ñu gis compétition bu nga fi jaar looy wax ci bés bi tey dafa taaru ah. neex na lool mbëri wuy si nañu di ñaan yàlla yàlla may ma ndam rek. waaw ñu gis suñu mbër yu mag yëpp ñoom Seye Ndiaye 2 ñoom Goro Sock ñoom Obali. nga war a jëflante ñoom waaw non lamb la ku nekk mun naa daan sama morom. waaw ñu fi nekk yëpp ay champion lañu. waaw kon bonne chance. jaajëf waay ok merci. ñëwaat na soobu bu gaaw la andi xool ko fii waaw kay ñëpp a fi doon xaar tey xoolal laamu ji ni ñu jógee ko xëcc ko laamu dekki na laamu musul dee daa mel ni day dox du ñu wut ci Malcom Malcom mu ngi ñëw ci yow ayca. rëgg-rëgg noonu dem bi da koy dee lu koy tëggal rëgg-rëgg noonu mbokk yi gëj nañ koo gis ci làmb mu ñëw tey journée Jax production ba Babacar a ngi sama wet Mbarako mbokk yi Babacar a ngi sama wet Babacar nuyu naa la. ndeysaan naa la. Babacar ñoo ngi la forme koy maye. eh way waaw waaw. Babacar daa kontaan Babacar daa kontaan. daa liggéey daa am doole allah gaaw balaa gars yi dugg

arbitre sifle waat na ci diggante Serigne Ndiaye bu Fass ak Obali Obali ngeen ñu fàttali leen Obali lee ngeen moo ngeen mu xonk li Serigne Ndiaye de moo ngeen moo ngeen mu vert li ñoo ngi jàppante loxo mbokk yi ñu fàttali waat leen arbitre sifle waat na ci diggante Gora Sock ak Pakala Gora Sock daw na jël Doosa Pakala Pakala ngay plaqué Doosa jël na tànk Pakala laay mu ñu sotti Caaka Fay lamb ju metti nga fi gis diggante Obele ak Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye moo ngeem moo ngeemul vert li Obele ngeem moo ngeemul xonk li Serigne Ndiaye jàpp na ci tànk Obeuly mi Obeuly teqal na ko teqal na ko fekk Serigne Ndiaye daan na Obeuly Serigne Ndiaye daan na Obeuly Serigne Ndiaye daan na Obeuly Caaka Faye jël na ko Caaka Faye Caaka Faye daanu na Caaka Faye daanu na ponkal yaa ngi daanu Caaka Faye daanu na mbokk yi mu des diggante Pakala ak Goro Sock la la la la laaw simple a ngi a abi bi sifle waat na ci diggante Goso ak Pakala jàppante waat nañu Pakala ko accéléré Goso ne ko des jot gannaaw Pakala Gora Sock jël na ko Gora Sock jël na ko Pakala bañ a Gora Sock jël a ko ah laamu ji neex na Gora Sock daa waaj ba suuf daal tibb ko Pakala résisté ko. ay ay ay ay. Ah. neex na Bagaye moo koy par la Gora Sogo gi jàppante Gora Sogo koy puus Gora Sogo koy puus da koo bëgg a génnee laa ngi lamb ji métti ci diggante Pakala Gora Sogo ay waay ay ay sama xol daa sedd TCS yëpp seen xol daa sedd tey mbokk ci diggante Pakala ak Gora Sock ba tey ñoo ngi jàppante Pakala da koo bëgg Pakala ngi bañ Pakala ngi bañ doo sëg Pakala dama ragal yàlla bu ko tuur dama ragal Pakala yàlla bu tuur doo sëg ba tey ñoo ngi jàppante mbokk yi Habib na dama ragal làmb ji par point lay jeexee jox nañu Pakala doo sëg ngoog ci digg géew bi mu Pakala par Pakala n'a pas démérité yaa fi jëloon barki démb bakaati démb nga ne final wax ak seen njaay mu daal la làmb nii la ñu gis nañ ko boobu Pakala boobu métti boobu yàgg abi bi bu laa jox ndam champion la xam nga mooy bëri moom da ngay bëri fulla la ma dox combat bi yàgg waaw li ma ne loolu laa xam ne mooy naax yi mi plaqué mais xam nga la